Euh, te muy weer woo xam ne weeru yiw yi di bokk ci weer yi ñu warmal te ci njabootuk Cheikhul Khadim ñu bari ci lool ay manaaxib Sëriñ Tuubaa am lu mu ci waxoon ne wahabtali ma rum min ka rumtu fi rajab karamatan min ka tuddi mu lil ajab euh, yow suñ borom day may nga ma ci biir rajab yoo xam ne ay kéemtaan la euh, yu sax dàkk kéemtaan yooyu nag wala ci baax baax yooyu kenn ci njabootu Serigne Touba muy Cheikh Abdoulahi ñu di ko ci fàttaliku Cheikh Abdoulahi nag doon noonu koo xam ne bi fi jógee xëy na xaw naa yàgg tuuti ndax 1960 la fi jógee eh, waaye mu doonoon koo xam ne ci njabootu Serigne Touba bi Serigne bi dem ci géej gi Cheikh Mamadou Bachir moo mujj feeñ waaye bi mu ñëwee Sénégal toog fi biir yóbbu ko gànnaar bi mu ñëwee ñu bisiwaat jóge gànnaar ñu téye foofu la Cheikh Abdoulahi feeñe Cheikh Abdoulahi nag kon mu njëkk feeñaat ginnaaw tukki géej gi Cheikh Abdoulahi Sëriñ Tuubaa mi ko tuddee Abdoulahi ibn Abbas Abdoulahi ibn Abbas doy na ci rek tegtal moom la yonent bi salaa sallam wax ne huwa xibrul umma moom mooy fóorey xeetu yonent bi salaa sallam bu doonoon koo xam ne ci xam-xam woon nañ ko lool waaye Cheikh Abdullahi feeñ jamono ci soxna soo xam ne soxna Fatimatal Kubra lañ ko doon wax te mu ngi ko woon Mauritanie sëriñ bi yabaloon ay mag waaye mu leen di yabalit mu joxaale leen woon xasida boo xam ne mooy xasida min al xaq ja al xaq lil xaq fi saabi bi xaqin mubin la yuanihi min saabi xasida googu moo sëriñ bi ñoo wala bokk na ci yi sëriñ bi joxe woon ne nañ ko màndargaale ca jamono yooye Cheikh nag doon koo xam ne euh, momit dan dañ ko yar jangal ko jàng ma jàngum alxuraan Cheikh abdou rahman moko ko jangal waye jangum xam-xam mayit janggal eh, serigne Mbàkke Buso jangal nako serigne ma samba Kanni jangal nako mam maam Cerno Birahim it jàngal na ndax serigne dan nako yabal daru moti te mam ca bo fekk na mam Cerno radiyallahu anhu njàng mi tegoon na ko ci yeneen loxo moom it di ittewoo leneen loo xam ne moo gën a kawe loolu wala di ko saytoo ci geneen fànn waaye bi Cheikh Abdoulaye ñëwee dafa tàmbaliwaat dellu di jàngale ci daara ji sëñ Abdul Xuddus moom maam Thierno biral na ne jamono yooyu maam Thierno dellusiwaatee ci daara ji di jàngale di tëral nee boobu ñu bég ci lool di ko wax maam Thierno nan ko ñun de dañoo bëgg ñu jàngal mu ne leen seenum jàngal li ci ma di ko defaat mu ngi aju rek ci euh, abdoulaye nekk fi bu abdoulaye ñëwee daal ma delluwaat di jàngal waaye bu demee it ma delluwaat ca la ma nekkoon ndax dafa daan nekk diir delluwaat njaareem ci sëriñ tuuba ndax bi muy dal jàng sëriñ tuuba moo ko dalal alquran waaye moom sëriñ abdu ci boppam dafa daan wax sëriñ tuuba ne ko yow laa bëgg nga jàngal ma da daan wéet moom lu baree bari ci njaareem wax nañ ne ku ci sëñ Basiru mi nga xam ne moom ci moom la fare woon Cheikh Abdoulahi moo ci ëppaat lu mu taxoo ak moom sëñ Tuubaa daan nekk moom lu bari eh, daan ko tarbiya daan ko itama yar mu doon koo xam ne ku teel a eh, jël ay responsabilité am la moom it muy loo xam ne lu ama am solo la ndax teel a bi sa bopp mag dafa bokk ci melo yu islaam bokk itam ci li nga xam ne moom la gën gërëm bu ñuy xool bi muy sanc daaru rahman ak barab yooyu nga xam ne ay daara la woon mu daan ci bay eh, ñaar fukki atam benn la teg wala lu mel noonu wala tëggu mu sanc daaru rahman waaye bi mu sancee daaru rahman it mu di fa bay mbayum nawet waaye mu jekki-jekki gis ne ndaw mbay mii mbay war naa man di la dundal ba noppi di dund waaye mbay moo xam ne dafay jee ba noppi soog laa dundal moomu mbay daal war nees naa mën a am lu ko gën jàppande ci la tàmbali defarlu ay siyaan dafa tàmbali gër ba ñu di ca bay wax nañ ne ñu ko duggee eh, biñ koy tàmbali boobu ndox mi demee fi woon nii waaye da koo tàmbali rek suñu boroom andil ko xéewal mu am ñaari baat yu mu daan baamtu muy minal jannati ilal a wala a xaafa maqaama rabbihi jannataani euh, te moo di suñu borom de boo ko ragalee dëgg-dëgg ragal sa àddina àjjana lay doon waaye boo fi bàyyi ko it àjjana lay doon euh, te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne yaa ngi jege jegalu yàlla te mu santaane. nga di ko def ci sa coobaree bopp di julli ak di woor ak jëf yu baax yépp ya demee na yooye nga di ko def nee na dana dem ba dafay mujj boo waxee di sàkku dara yàlla jox la ko boo waxee di fegu dara yàlla fegal la ko boo wootee yàlla wuy la boo ko ñaanee mu may la nga mujj sa loxo dafay mel ni loo laal yàllaa ko laal boo doxee dafay mel ni yàlla moo dox loola nag feeñ na lool ci mbiram ndax ku ragal yàlla yàlla dafay tàggat lépp mu ñeel la saa boo ko ragalee lépp leneen lu dul moom ni ko sëriñ Tuubaa waxee daf lay ragal waaye saa boo jàppee yàlla it leneen li ci des lépp danga koy am waaye saa boo demee jàpp leneen lu dul yàlla euh, leneen li ci des lépp mënees na koo ñàkk dal nañ ci yàlla musal sëriñ Abdoulaye nag doonoon koo xam ne jabootug Serigne Touba gépp dafa amoon ak ñoom relation bu dëgër dëgër mook Serigne Saliou rek Serigne Saliou nettali na ne bi ñuy dëkk ci kër Serigne Amsatou Diakhaté ci Touba kenn ku nekk am fa am néeg Serigne Abdoulaye mas naa tukki bàyyee ko am néegam nee na mu am ay jumtukaay yu mu fa jëlee yóbbu néegam moom Serigne Saliou nee na bi Serigne Abdoulaye dellusee eh, sëriñ Saliou nee na mu bëgg a jël jumtukaay yooyu di ko ko delloo nee na dana ma déedéet Abdoulaye euh, euh, bu ko si ndax boo ko delloosee dafay mel ni ñun ñaari jëmm lañu te genn jëmm rek lañu jàppante googa nag ak doylonte googa ak wóolonte gi ñu amoon loola am njàngale la woon moo xam ne nit ñi mën nañ cee itam a jariñ diggam ak Sëriñ Fàllu itam jege gi ñu jege kër rek firnde la ci ndax euh, Sëriñ Fàllu dafa wax Sëriñ Cheikh ne ko maag Sëriñ Abdoulaye de nañu dend ay kër ndax euh, sëriñ Tuubaa ni firnde la nit ne ëllëg yàlla mën naa def ci aljana suñu kër du sore kon nañ ko tàmbali fii ci àddina bu ñu demee foofa mën ko faa fekk sëriñ Abdoulaye nag bi fi fiy jógee mu xaw a teel lool muy 1960 mu doon nit koo xam ne xikma la amoon te xikam yooyu daan na bokk na ca yam daan waxan wax mooy daan na wax ne nit ku nekk de ñettam dafa war a yées ñettam daan na wax ne nit ku nekk mbubbam dafa war a yées darajaam daan na wax ne nit ku nekk ay waxam dafa war a yées jëfam daan wax ne nit ku nekk daan wax ne ku nekk waxam dafa war a yées eh, jëfam wax ne ku nekk it diineem am xelam dafa war a yées eh, diineem diine ji moo war a jiitu xel mi topp ci di ko leeral waaye nit ku jiital am xelam rek ci diine nee na bu boobaa mën naa andi njuumte daan na wax ne nawloonte itam nit ku nekk noo koy xoole rek noonu lay xoole di ko misaal ci kenn ku yëg ci garabu ron nee na nit ñi xool ko ne ko muy xool nit ñi ne leen yéen yéen ngi mel ni ay ginaar waaye ñu ngi suufi tont ko ne ko yow yaa ngi mel ni as picc daan na wax ne itam nit ku jiite da ngaa war di diisoo ak ña jiitu ndax nee na nit bu jiitoo wut ñaari bët lay yor di xool waaye nee na bu jiitoo rek nee na benn bët la la dese nee ba ca des da ko war a bàyyee ak mbooloo ma di diisoo ak ñoom di euh, waxtaan ak ñoom daan na wax ne it ne bokk kàddu euh, jar na ci nit mu bàyyi la jàppoon donte la sax léeg-léeg dana gis ne xëy na moo gën a dëgër xëy na moo gën a baax waaye mbooloo ma la ànd nee na nañ cay jàpp di ko misaal ci saxaaba yi alayhim ridwanullahi eh, bi ñu demee di dajale alxuraan ak juyoo mënoon na caa am waaye la tax amu ci mooy ñëpp dañoo bàyyi ñëw ci kaamil bi nga xam ne moom la Seydina Ousmane dajale woon ñu tasaare booba siiwal ko ngir eh, déggin bi ak and bi ak dox bi mën nek ben benn loolu yëpp daan na ci fatte nit ñi daan na yar nit ñi ci baña a jëw daan na yar nit ñi ci nangoo liggéey ndax daan na yar nit ñi ci liggéey waye buñ liggéey ba nopi lañu liggéey ñu jariñoo ko transformé ko bu fekke ne mën nañ ko jaay ñu jaay ko buñ ko mënta jaay ñu def ko ci ay anam yo xamne ne du gaaw a lolay loolay daan na ci yar nit ñi di sos ay garabu liggéeyukaay di jëmbat ay garabi ron waaye garabi ron yooyu bu ñu ko bayee ba noppi ñu dagg ko def ko ay ron jaan euh, di ci ràbb ay mbir moo xam ne danañ ko mën a jël di ko jaayi feneen jëli foofu leneen di ko indi loolu it doonoon loo xam ne ci jikkoom lu bokkoon sa bopp di fàgg koom lew doonoon na loo xam ne lu ñu fonkoon la ndax tool yooyu la ci daan jële euh, ab diirub jamono boo xam ne moo ko di ko jaayal boppam bu ñëwee ba Mbàkke limaanu syrien yi fi nekkoon li ci ëpp eh, moo leen daan ravitaillé ci wàllu fruit ak légume ñu bari sax loolu daan na leen xaw a def ñagg ñaggi xol waaye da leen di wax ne naka mook ngi jóg bañ liggéey di tàllal sa loxo nit ñi amaan nañu jox la amaan nañu xañan la ba noppi nag di la booro la jéppi loolu doonoon lu mu daan eh, jàngale doonoon it loo xam ne mu nit mën a toll wala nu ñu la mën a tollale nga bañ a weesal sa bopp liggéey ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon maam Cerno ne ko euh, ku la mën a jur te jaamu yàlla gënoo kenn waaye lañ la mën a joxe te liggéey yow du la jariñ dara loolee nag Sëriñ Abdoulaye daan na ko dund euh, daan na ko def nit ñi di ko gis mu bàyyi fii njaboot goo xam ne ca nekk ci boobu Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ñu gën ko xam ci Sëriñ Cheikh Daaru Rahman euh, mu tegu ca yoon woowa di liggéey jaamu yàlla di jàng ak jàngale ak yar njaboot bi noonu it la njabootu Cheikh Abdoulahi gépp mel bu Cheikh Mamadou Habib Cheikh Moustapha Sëriñ Mourou Kéemaan ak mën naa wax ne ñépp rek te jigéen ñi it muy soxna Maymuna mi nga xam ne moo ci mag ba ca ka ca mujj feeñ ñun ñëpp ci loolu lañ nekk muy liggéey jaamu yàlla gàttu tànk gàttu làmmiñ te lu ñu am moo doy leen euh, Cheikh Abdoulahi daal euh, kenn la ci njabootu sëñ bi koo xam ne euh, ni njabootu sëñ bi doone génn jëmmi sëñ bi nga xam ne ku ne am na cag jagle waaye ñoom ñëpp baax ak baaxal rek moo leen tax jóg noonu rek la fi nekkee woon ba ni mu fi jógee bàyyi fi njaboot gi màggal gi ñu koy màggalal ci weeru rajab di fukki fan yi ak juróom benn ci daaru rahman li ñaan ñëpp ñu wuti ci bismillah dellu ci alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah